وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتدى بهديهم إلى يوم الدين ثم ما بعد بكل الدين إني تعمل اسم وحسن سنت الله سبحانه وتعالى إذا سنت جي أي خير ولم ينا خمنا سنت سواء يبقى ولا يبقى بأخوه بري بري أبران نبني قدون لم منين كاتن xéewal yooyu bokk ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam kon ñu julli ci yonent boobu salallahu alayhi wa alihi wa sallam julli googu ñu def ko ci ay ñoom def ko ci saxaabaam yi di ko ñaan yàlla def ko ci bépp julli ba bis bi gannaaw loolu ñu ñëw ci bayaan bi fàttaliwante ci lenn loo xam ne dina defar jullit bi lu ajowoo ci àddinam rawatina li nga xam ne mooy àllaaxira nga xam ne yàlla nee moom mooy kër gi nga xam ne xayru abqa àllaaxira moom mooy li nga xam ne mooy des te moo gën kon fàttaliwante ci li nga xam ne mooy dimbale jaam bi ba kër googu noonu mën kaa tabax nam gënee ba nga xam ne ëllëg dina bokk ci ñi nga xam ne ñooy texe loolu moo ñuy yóbbu woon ñu xalaat ci waxtaan ci li nga xam ne mooy la tax diine ji ñëw nga xam ne mën nañoo wax ne eh, mën nañ kaa xam waaye am na ci yenn ci ay mbir di ay sew-sew yoo xam ne dañ ci bàyyi xel ñu jëloon ne nañ waxtaan ci islaam ak ay ponkam ponk lan mooy dëgg-dëgg ponk boobu ak lan mooy ay jubluwaayam waxtaan nañ ci ñaari baati seede yi mag yooyu di shahadatu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah indi nañ sart yi nga xam ne mooy mat ngir ne baat bu ko wax ñi mën laa soog a boole ci jullit yi boo ko waxee mu dëgg sart ya mat booba nekk nga jullit naka yonent bi sallallahu waxee woon ne boobaa dinañ xaraamal kenn ci nit ñi di jël sa alal wala muy jël sa deret wala muy jël loo xam ne daganul mu koy jël ci yow ñu jàll ci deuxième ponk bi di asalaat nekk ponk bu màgg ci ponk islaam yi nekk tamit lu màgg ci jaam bi ña tëjee woon siñ bayaan bi passé ne yonent bi sallallahu leeral na ci hadis ne képp koo xam ne sàmm na leen kooku dina dund dund bu neex dina dee ci dee gu neex te mooy dina dee ci islaam te dee ci islaam mooy dee ci tedd mooy dee ci saada te boobaa àllaaxira dina bokk ci ñi nga xam ne ñooy texe bañ nga laajee lan la mu ne juróomi julli yi kon julli am importance boo xam ne jullit bu ne war nañu ko bàyyi xel waxuñ di bàyyi xel buñ noddee nga dem julli ji def say rukoor def say sëgg waaye nga xam lan moo nekk ci gannaaw julli dañu koy tuddee al maqasid bu ñu waxee maqasidu salaat yi mooy jubluwaay yi nga xam ne sharia islamiya wala diine islam wala yàlla si boppam def na ko ci li nga xam ne mooy jullit jullit bu ne war na kaa xam ndaxte dina ko dimbale mu gën a jox julli googu noonu muy def solo am nañ ci ay farata am nañ ci ay naafile yàlla subhanahu wa taala buñ xoolee lépp da ngaa farataal yonent bi bu farataal ko ci xeet wi wala mu jottali li xeet wi waye ba demé ci julli daf ko farataal ba pare nako da nga taxawal julli waye ci yeen ay mu ne ko wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha laa nasaluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa foofu dafa ñëw ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga digal say ñoñ say waa kër say soxna say doom ñi nga xam ne ñoo nekk ci sa ron na leen digal julli kon mu amutoon solo ak lam mën a jox jaam bi ëllëg yawmal xiyaama yàlla du ko digle ba pare di soññaat yonent bi sallallahu wa pour mu digal ko waa këram di wax ci aaya bi ne ko laaj ñu la benn wërsëg pour nga jox ñu ko ñun yàlla waaye na nga xam ne ñun ñoo lay wërsëgal ñun ñoo lay jox li nga soxla yépp waaye nañ xam ne nag mujj ga mu nga ñeel ñi nga xam ne ragal nañ yàlla kon loolu bu ñëwee ci alquran julit bi war naa taxaw seetantal lan moo tax yàlla ba mu farataal julli ba ba di ko ñaax pour mu digal ko ay ñoñam waxoon nañ ko ci bayat bi passé moo ne julli dafa bokk ci li nga xam ne da dafay tax jaam bi mucc ndax nee ni li ñuy njëkk ci jaam bi mooy julli bu baxé mbolem jëf yépp dina bax dina yomb bu fekké ne nag baaxul boobaa yàlla dina xoolaat yeneen jëf yi kon ci lool motax bon war nañu xam lan mo nek ay maqasid wala ay jullu way ci julli gogu non yàlla faratal bi bon xam nga ñu lim nañ yu bari bokk na ci zikrullahi subhanahu wa taala wa taqarrubu ilayhi وتجديد العهد به سبحانه وتعالى ني تي جولي باكو ناي جوبلو واي موي ني فاتليكو بروم بي سبحانه وتعالى خامني امنا كولا بيند مون لاي باي خيل يعني. كون فاتليكو جولي ولا فاتليكو يالله سبحانه وتعالى نين كاي گن امي تي جولي داخ يالله سبحانه وتعالى بام ديمي واخ سيدنا موسى عليه السلام Neko ko mission bii ma lay jox te nga ci islam dan ko na nga defar sa xol bi ba nga xam ne doo ma mën a bokkaale dara ñaare balam ko tegal moo ne ko wa aqimi salata li zikri mooy na nga taxawal julli ngir nga fàttali ma ca julli ne yaa ngi taxaw diggante borom bu màgg borom boo xam ne moom la bind soxla ci moom nga ko war a amee wala ci moom nga koy amee kon julli jaamu yàlla yi ci li ñuy gën a def ñi am connexion mën a jokkaalante ci borom subhanahu wa taala ci la bokk te dafa làmboo mboolem jaamu yàlla yépp wala mboolem arkaani islam yépp yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ñaareel bi mooy julli dafay def mooy nga man a beesal kóllëre bu dox sa digganteeg sa borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne kóllëre gi nga xam ne yàlla def na ko diggante jaam bi ak boromam mooy mii taxawal julli fekk mu ngay matal jullit la waaye bu fekkee na dox na ko arrêté na kóllëre googu te mooy bàyyi ni julli yonent bi nee na googu bokkatu ci jullit ñi kon saa yooyu julli rek di sàmm na nga xam ne kóllëre googu yaa ngay matal bokk na ci comme ni ñu ko waxee mooy jege borom bi subhanahu wa taala ndax nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali na ne jaam bi kañ lay gën a jege boromam mu ne leen bu sujuudee te sujuud di nga def lu dul si julli kon boo bëggee di jege yàlla subhanahu wa taala na nga bëri li nga xam ne moom ngay sujuud ndax saa yoo sujuudee rek na nga xam ne yaa ngi jege borom bi subhanahu wa te yonent nee na Euh, place boobu noonu loo ci wax yàlla subhanahu wa taala mu naxul la ko kon bokk na ci li nga xam ne moom lañ war a xamee ci julli ne dañuy may lii nii dañuy may ñi fàttaliku yàlla dañuy may ñi jege ci borom dañuy may kóllëre bi nga xam ne dox na ci diggante ci borom ñi koy gën a sàmm te yàlla wax na ci alxuraan ne na ngeen ma tudd lu bëri mu xas naa fekk yi ne du tudd yàlla lu dul tuuti kon jullit bi war na ban sàmm loolu noonu nga xam ne moom moo koy poussé pour loolu noonu mën a mat te mooy tudd yàlla ak beesal li nga xam ne moo dox diggante boromam benn si borom xam-xam yi firi ne wax jooju ne wa aqimi salaata li zikri ne li ci yàlla subhanahu wa taala jublu mooy mooy nañ taxawal julli ngir di fàttaliku borom bi ndax nit dañ kaa bind ci xafla te mooy sàggante man ngaa toog ay heure di fàtte yàlla waaye moo tax yàlla indi juróomi julli yi pour ñi si mën a delluwaat ci borom dinañu xam lan ci julli lan inna salata tanha anil fahsai wal munkar mu indi ci wala zikrullahi akbar ne tudd yàlla moom moo gën a tudd yàlla ci julli dara gënu kaa màgg ndax bu fekkee yeesal nga sa sa ci na nga taxaw xam ne yaa ngi ci sa kanam borom di julli yaa ngi ci tudd yàlla ba nu pare waaye buñ ne wala zikrullahi akbar nga bu kaafiree beneen façon ba toog di tudd yàlla dëgg la loolu tudd yàlla la waaye ci biir julli moo gën a foor te moo gën a màgg ñaareel bi di màggal borom bi subhanahu wa taala bu ñu waxee màggal borom bi nag nekkul ne sax am na leneen loo xam ne war nañ kaa màggal ci kaw suuf ku tudd yàlla subhaanahu wa moom rek lañ war a màggal moom lañ war a yëkkati moom lañ war a jox li nga xam ne moom moo ko jegoo ci ay xasaais maanaam ci ay jagla kaay yoo xam ne moom moo ko jagleel boppam ndax yàlla war na ci ne ñoom de joxuñ ma sama gëdd wa maa qadarullah xaqa qadrihi yàlla nañ ko waroon a màggalee màggalewul waaye léegi dem na sax ba magal minde moo gën a yomb ci ñoom ñi màggal borom bi subhanahu wa taala kon waaye boo bëggee di am loolu mooy day julli ndax dina la dimbale pour ngay gën a màggal borom bi subhanahu wa taala ci ñaan bu ngay ñaan ci biir julli allah rukoo bu ngay rukoo sujud geeg tasbix yi fay def ak yooyu yëpp yooyu yëpp da lay dimbale pour nga am maqaama boobu mooy di màggal borom bi subhanahu wa taala nangul ko mooy ñetteel bi ci ndigal li nga xam ne jox na la ko soit nga xam ne la moo nekk ci ndigal li wala xamoo ko loolu yëpp nangu géew bu noonu noonu daf lay def nga nekk ab jullit kon du la koy dimbale julli bokk na ci nga dem taxaw ci kanam borom subhanahu wa taala fas yéene joxe ay julli yoo xam ne moom moo ko faratal ci yow nangu góob nga ko nangu loolu daf lay dimbale ci nga nekk ab jullit kon julli loolu la ñu siy dimbale ñi xam la sa nekk ca gannaaw wala la ca nekkul bokk na ci defar ci bakkan yi laabal ko ba nga xam ne dina yëkkatiku ndax bakkan bu laab yëkkatiku kenn mënu kaa amee lu dul si jaamu yàlla bu ñu waxee jaamu yàlla nag si gën a màgg mooy julli bakkan bu suufee torox lu koy indi mooy di tàbbi ci ay bakkaar ak ay maasi kon yàlla bugg na jaam bii nii mu bind te bind ko lu dul di sant mu koy jaamu toujours la koy dimbale mooy bakkanam sell te lay sakk sellal bakkan julli ci la bokk ndax alquran mu ngi ñëw di wax ne man maa yónni ci yéen ab yonantu boo xam ne daa ñëw pour laabal seen bakkan yi ca la ngeen nekkoon di ko jaamu ca jamonoy yëfër mooy fexe ba doo leen bokkaale yàlla doo leen jaamu leneen lu dul yàlla loolu benn la mu ñëw tamit fexe ba orienté leen ci li nga xam ne moom moo baax te mooy diine islam yi loolu li ñu ciy gën a dimbale bokk nañ ci mooy julli ba léegi si jubluwaay yooyu dañu wax ne julli lii yëkkati la ay njàqare ak ay jafe-jafe ndax loolu saxaaba yi ñoom demoon nañ ba xam ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bu demee ba toog nekk ci ay njàqare dafay wax naan Seydina Bilaal danaan ko arihna biha ya Bilaal Bilaal noonu daal julli ngir ñu am coono yi nga xam ne ñu ngi koy daje coono yooyu mën a teggeeku Seydina Abubakar demoon na seeti benn saxaaba ba demee toog lu yàgg mu ne ko abal ma jàppukaay kaay ma jàpp julli ngir sama coono bakkan gi ak sama coono yaram mën a wàcc kon loolu ñoom xamoon nañ ne julli lépp loo xam ne coono la wala ay jafe-jafe wala ay loo xam ne dafay sonal doomu aadama bi loolu julli da ngay yëkkati loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax baat boobu noonu Bilaal bin Rabah radiyallahu anhu yonent bi waxaat ci hadiis ne addina bi de am na yoo xam ne bëgguloon nañ ma ko lim ci ay mbir waaye ba mujjee ne ne wa ja'altu qurrata ayni fi salaati waaye yooyu yëpp lu ñuy am solo am solo la nga xam ne ca sama bakkan di dalee mooy julli kon jaam bi war na bon bu nekkee si julli na fexe bon mbooleem jafe-jafe àddina yi warusee nekk di xalaat na xam ne mu ci kanam bi borom boo xam ne lépp la man jafe-jafe yooyu mën na kaa teggin kon bu fekkee ne jàpp nañ ne lii nii dañ koy amee si julli lii nii mën nañ kaa jëriñoo si julli boole kaa ne julli buñ ko sàmmee ëllëg yomal xiyaama bokk ci ñiy texe kon war nañoo gën a jox kon julli yitte bu ñëwee ba taxaw ci kanam yàlla subhanahu wa taala bañ wax ne nañ julli rek ngir noppalu waaye déedéet nañ julli ngir yàlla teggal ñu suñuy coono loolu bu ñu ko defee jàppee ko noonu kon dinañ yëg li ñuy julli am na njëriñ bi nga xam ne moo mujj wala lu ko jiitu moo ne julli dafay defar ay jikko dafay defar jikkoy jàmbi ba nga xam ne du tàbbi ci faxsha du tàbbi ci li ñuy tuddee mu dara mooy du tàbbi ci loo xam ne lu bon la wala muy tàbbi ci luñ sib loolu day fekk mooy waxoon nañ ko la ngay julli nekk loo xam ne yaa ngi koy def sa anam ba mu waree waaye bu fekkee da ngay ñëw rek kàbbaar julli sëgg sigi sëlmal loolu taxu ñu naan julli wax nañ ne julli mooy lan boo ci nekkee xam ne yaa ngi taxaw ci sa kanam borom. lépp loo xam ne yaa ngi koy def sa biir julli ga wala nga koy wax boo génnee nga dundee ko maanaam nga dundee noonu nga nekkee woon sa julli ga loolu boo ko defee mooy ne am nga la ñuy tuddee julli waaye bu fekkee ne da ñëw rek naa ko joxee bu jeex loolu taxu ñuy wax julli kon bu yàlla ne na salaata tanha anil fahsaa'i wal munkar mooy ne julli dafay tere lépp lu ñaaw ak lépp luñ sib lépp lu bon ci jaam bi ba jaam bi du mën a tàbbi ci ay bàkkaar nga def koo ànd ak jubluwaay yi nga xam ne moom lañ leen léegi kon war na kon jullit bi góorgóorlu ci jaamu yàlla yooyu li muy néew néew wala lu bëri bëri yàlla moom subhaanahu wa taala lam ca soxla mooy sell ga boo fi julli woon téeméer selluwul yàlla bu ko nga julli benn rakkaam bu sell yàlla loolu la soxla kon dañuy bàyyiwaat xel ci julli ne bokk na ci arkaani islam yi gën a am solo ñi ban jiga ka sàgganee comme ñi nga xam ne ñenn yi noonu lañ koy defee nga xam ne loolu moom mooy mottali si islam te loolu mooy li nga xam ne moo ñuy may dund bu neex fii si àddina bi ëllëg buñ faatoo la ñuy may euh, ñiw am texe foofu mooy julli yu baax kon ñu xam ne bon yàlla subhanahu wa taala euh, digaluñu farataal ñu si ñun julli lu dul ne lépp lépp ay xéewal la ci ñun kon foofu dañuy taxaw laata ñuy tëj ñu wax leen benn information boo xam ne sëriñ bi moom moo ko wax ak waa jumaa ji nee nañ dañuy bugg a mottali liggéeyu jumaa ji ñi ki mel ni sóoróor yi ñu balancé ko euh, defaraat yenn ci jumaa ji di si om mbooleem jullit yëpp rawatina ñu jullee ci jumaa ji euh, di fàttali la nga xam ne yàlla wax na ko ci alxuraan ne wa maa taqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allah lépp loo xam ne jël ngeen ko ngeen jiital ko ci seen borom yàlla dina leen ko defal foofu ay compte yoo xam ne ëllëg boo leen demee da ngeen ko fa fekk kon ñi ñuy oo ci loo xam ne ñuy dundal ñi wax ñëpp nañ def wuyu ji loolu ndax ah, bokk na ci li yonent bi sallallahu a wa sallam ne képp koo xam ne tabax nga jumaa wala nga bokk ca ñi ko defar ëllëg yàlla dina la tabaxal kër ca aljana ñi ci oon ñëpp di ñaan yàlla yàlla defal ci dégg topp liñ ci wax ci bayaan bi bi sawaab yàlla boole ñu ko ñu ci jumte yàlla jógal ñu ko yàlla may ñu kattan bu ñuy mën a sàmmee lii di julli rawatina ak yeneen akkaan yëpp وما ذلك على الله العزيز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله انا الى غير شيخنا